Tukijiji la pesa ami internet de Pikine TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal ci seen revue de la semaine euh, comme nañ ko rek tàmm di defee saa su ne euh, ajuma bu jot rek ñu indi leen li nga xamante ne moom moo gën a fës ci semaine bi euh, dañ koy dooree rek ak dialogue national ndax rek bokk na ca lañ doon waxtaanee ca conseil des ministres bi weesu njiitu réew mi nag fàttali na gouvernement bi engagement bi nga xamante ne rek jëloon na ko en 2012 muy dëgëral lii di dialogue la nation euh, ngir rek jàmm ak stabilité sociale ci réew mi euh, ca loolu nag xamle na ne mardi trente mais bi la ñuy rek tàmbali boobulee dialogue euh, ca rek palais de la république dialogue bi nag dina ci ànd rek ak acteur politiques yi économique socio culturel des chefs religieux ak coutumières waaye tamit jeunes yi ak famille ngir rek ñu mën a am ay consensus durable ci ay questions relatives à la vie nationale waaye tamit rek ci lu jëm ci avenir euh, réew mi mu mel ni rek jaloog bi tàmbaleegul waaye coow yi mi ngi tàmbali euh, ndax rek yeewi askan wi dafa def ab communiqué di wax ni ñoom nag ñi ngi dëggal ni duñu wuyu ji ci boobu boobulee dialogue waaye kii di Khalifa Sall ak taxawu Sénégal ñoom it tamit génn nañu rek mu mel ni rek contre riposte lañ def ndax nee nañ waxtaanaguñu ba am consensus bu ñu waxtaanee ba am consensus dinañ xam ndax dinañu dem wala duñu dem indi ay problème ñu àddu rek wax rek ci manifestation bu FRAPP ak SYNPICS rek di amal tey ji euh, ci boobu ci siège ci buntu rek siège Excaf Télécom euh, Sodida ñoom nag la ñuy manifester rek mooy exiger payoor bu quatre mois d'arriéré salaire bu liggéeykatu Excaf Télécom yi exiger yi tamit payoor cotisation sociale ak congé yi waaye itam dénoncer licenciement arbitraire yi Excaf Télécom di def bu ñu sukkandikoo rek ci seen secrétariat exécutif national bu FRAPP addu rek wax ci leneen muy réapparition bu député bi di Amy Ndiaye Gniby moom nag ginnaaw rek ay weer ba incident ba amoon rek ca assemblée nationale ak député pur yi maire bu ñibbi nag uh, di Amy Ndiaye affiché wu na publiquement ak ëmb rek bu war a sori uh, ca conférence de presse bu réseau des jeunes maires bu APR doon amal rek dimanche bi ñu génn uh, dañuy desandi rek ci Amy Ndiaye ñibbi rek ndax juge bi rejeté na demande de mise en liberté provisoire bu avocat député yi di Massata Samb ak Mamadou Niang dugaloon rek ngir ñu bàyyi leen bàyyi ndéganiku ba toppi nag daal di renvoyé li nga xamante de moom moo di audience en bi ba 19 juin mu mel ni rek audience ba daf leen di fekk rek ñu daal di libre ndax rek ci fàttali tribunal bu première instance ma nga daanoon rek li nga xamante ne mooy le 2. Euh, janvier 2023 ci 6 mois euh, prison yoo xamante ne dañ koy tëdd waaye tamit ci amende bu toll ci 100 000 francs ak 5 millions dommages ak intérêt yu ñu war a rek dampe kii di Ami Ndiaye ñibbi kon nag audience bi 19 euh, juin day fekk rek ñu matal seen six mois de prison ferme yi nga xamante ne rek daanoon nañ leen ko ñu àdd wax ci présidentielle 2024 ak rek coowal troisième candidature bu jiitu réew mi bu ñu sukkandikoo rek ci journal français bi di le Figaro euh, Macky Sall nag consulté na juriste français bi di euh, Guillaume Drago euh, ci lu jëm rek ci révision constitution bu 2016 nga xam ni rek moo wàññi mandat bi indi ko juróomi at waaye itamit ne kenn rek mënatul def lu ëpp ñaari mandat yoo xamante ne dafa tegloo mu tax rek spécialiste français bi wax na ni mandat bi nga xamante ne moo nekkoon en cours ba ñuy amal rek révision bi boobule mandat nag du bokk rek ci li nga xamante ne moom moo di euh, du prendre en compte li nga xamante ne moom moo di loi bu yees bi ba tax nag kii di Guillaume Drago jeexal exposé bu 16 page euh, bu mu amal naan nag Macky Sall mën na samp rek ndëndëm ci élection bu février 2024 euh, yi ñu jëm ñu àddu wax ci arrestation yi ak plateforme bi di F24 Mamadou mbooj ak ay ñoñam ci communiqué rek de presse bu ñu fësal ñoo ngi si dénoncé comportement bu autorité yi am muy euh, di persister ak di wéyal ay mesures yoo xam ni rek mën nañu koo jàppee traque des activistes opposants ak ay euh, journalistes ngir dañoo jël rek position fondée ci liberté d'expression euh, pour F24 nag ñi ñëpp dañuy teg ñi ñëpp ñëpp rek ñi nga xamante ne teg nañu leen loxo ñu ngi leen di toppee délit d'opinion te loolu nag dafa wuute rek ak principe bu état de droit di doxe ba tax rek ñuy fàttali autorité judiciaire yi que règle article yi nekk euh, ci texte pénal wu Sénégal yi rek ñu daal di koy euh, jéem a euh, respecté addu wax ci arrestation nag bu Serigne Saliou Gueye di directeur de publication yor yor waaye itam nag nekk chroniqueur ca Sen TV moom nag ña ngi koy toppee rek chef d'accusation yi di outrage à magistrat waaye tamit usurpation de fonction ndax nag moom Serigne Saliou Gueye amul carte nationale de presse tey ji nag la fas yéene jàkkaarloo waat ki nga xamante ne moom moo di juge juge bi ñu xam rek euh, fan lay mujjee moom euh, Serigne Saliou euh, Gueye ñu desandi rek ci justice bi ak arrestation yi ak journaliste bi di Mati Sarr Niang moom nag gannaaw rek ba ko juge d'instruction bu deuxième cabinet interrogé ci waaye teewaayu avocat wam di maître Moussa Sarr juge bi nag da ko inculpé pour acte ak manœuvre de nature rek à porter atteinte à la sécurité publique ak ya tamit usurpation de fonction bu ñu sukkandikoo rek ci maître Moussa Sarr juge d'instruction bi di Mamadou Seck nag placé na Mati Sarr ña su mandat de dépôt ñu koy euh, wanal nag su di ko firndeel nag suñu soutien moom journaliste bi ak rek bépp journaliste boo xamante ne tekk nañ ko loxo ndax nag duñu tàyyi mukk di ko wax place journaliste nekkul ci kaso bi waaye nag ci terrain reportage waaye tamit euh, di def li nga xamante ne moom moo di commentaire ndax le commentaire est euh, libre ñu àddu rek wax ci procès bi amoon na rek ci diggante Ousmane Sonko ak euh, aji saax muy nag lu ñu bëri doon xaar ndax nag ba coow la amee rek en 2021 ay émeute amoon na ca ba tollu rek ci 14 doomu aadama jot cee ñàkk seeni bakkan ay nit ñàkk ci li nga xamante ne moom moo di seeni ay alal waaye tamit nag ba ñu yëngalaate li nga xamante ne nag moom moo di dossier bi am na euh, ñetti doomu aadama rek yu ci ñàkkat seen bakkan muy dossier bu sensible euh, mardi bi ñu génn nag taxawal nañ dossier bi ci kanamu juge bi ngir rek àtte wax rek ana fan la dëgg bi féete procès bi nag nekk lu spécial ndax kii di principal euh, concerné bi di njiital Pastef bi muy Ousmane sunko moom nag teewul ca tribunal ba bu Front Grand Déri de Dakar ndax dafa nekk di def li ñu naan bi désobéissance civile euh, ba tax rek juge bi jëloon nag dogal jugé ko en contumace leneen rek la ñu mën a jàpp rek ca procès bi bokk na ci avocat Ndeye Khady Ndiaye yi nga xamante ne rek euh, dañu gedd salle d'audience bi ndax euh, dañu sàkk woon rek ci juge bi ngir mu dàq procès bi ndax dafa am ay avocat yu bees yu tàbbi ci liggéey bi te amagu xamaguñu li nga xamante ne moom moo nekk ci fond dossier bi waaye itamit permettre ki nga xamante ne moom moo di Ndeye Khady Ndiaye nga xam ni rek dafa nekk en état de grossesse avancé euh, ba mu mucc rek ci jàmm waaye nag juge bi da leen koo bañan ba tax rek ñu àtte dossier bi ndey Khady Ndiaye nag amul avocat euh, Sonko ñëwul ay avocat wama dañu ñibbi ndax rek mënuñu ko layal euh, ñu des rek ba tey ci procès bi ak ki nga xamante ne moom moo di Adji Sarr moom nag dellu si na ci li nga xamante ne moom moo di film viol bi nga xamante ne moom nee na moom nee na moom la dund sans filtre ak ay ci ak Euh, sans filtre ak rek ci anam gu mu gën a ñaawee euh, moom Adji Sarr dellu déglu nañu ko itamit ki nga xamante ne nag moom moo di Ndeye Khady Ndiaye ak témoins yi ginnaaw loolu nag la avocat wu Adji Sarr yi nag daal di layal seen client euh, procureur def réquisitoire sàkku rek ci juge bi ngir mu daan Sonko dix ans ngir viol wala nag cinq ans pour délit de corruption de la jeunesse ak amende rek bu toll ci deux milliards ci sunu ay koppar pour kii nag di ex patron bu Sweet Beauté sàkku na rek ngir euh, ñu tëj ko euh, cinq ans de prison pour complice de viol ak amende rek bu toll ci cent mille francs ci sunu ay euh, koppar pour incitation à la débauche ak fësal ay image contraires aux bonnes mœurs jugement bi nag dañu ko yóbbu rek ba premier juin ngir rek délibéré gannaaw rek ba nga xamante ne nag jugement bi dàq nañ ko rek ba premier juin ki nga xamante ne nag di leader bu Pastef Pastef génn na euh, wax ci dossier bi wax nag ñàkk solo bi nga xamante ne euh, dossier bi ñàkk na ko solo moom Ousmane Sonko gannaaw loolu yi tamit euh, ki nga xamante ne rek moom moo di doctor bi nga xamante ne moom moo saytu woon Adji Sarr di Alfousseynou Gaye moom tamit génn na wax ni journaliste yi dañoo déformé ay kàddoom indi ay leeral bu baax ci dossier bi ak certificat médical bi nga xamante ne moom moo ko joxe waaye tamit kii di capitaine Touré def na ay témoignages yu am solo waaye tamit euh, nee nañ ki nga xamante ne euh, moom moo di Adji Sarr dafa indi ay wax yoo xamante ne dafa wute ak wax ya mu amoon waaye tamit preuve yi nga xamante ne dañu waxoon ne euh, am na ko mujjuñu koo génnee ñu àddu rek wax ci Adji Abdou Karim Fofana ndax moom nag mu mel ni rek day tontu kii di Ousmane Sonko nga xam ne rek wax na ni day ñibbi si Dakar te caravane de liberté la ko fas yéenee defee caravane bi nag mu mel ni rek tàmbali na ndax tey ci huit la waroon a quitté fi nga xamante ne moom moo di Ziguinchor ci loolu nag moom Ousmane Sonko fas yéene na jaar euh, fi nga xamante ne rek moom moo di Sédhiou waaye tamit Kolda euh, dina jàll tamit Vélingara caravane bi dina jaar Tambacounda Koupentoune Euh, Koungheul ak yeneen état yu ci mel ni Kaolack Fatick mbuur rek ak ni muy def rek ba yegg si fii ci Ndakaaru comme waaye nag kii di porte parole rek bu gouvernement bi nee na ko rek lépp lu mu jaxa danañ ko def rek waaye kenn du trouble l'ordre public ak euh, xel bu dal rek bu sénégalais yi am ratek ca nag naan euh, bu bëggee marche ci ndakaar kenn du ko ko aaye waaye nag ci ay respect rek bu loi yi ak règlement yi ba tey rek

ëllëg nag la ñu war a jouer seen troisième match ak Colombie muy match nag bu am solo ndax nag foog rek Sénégal am ndam waaye ndam bi kese du doy ndax dañuy dégluwaale Japon rek ngir mën a qualifier ca huitième de finale rek bu euh, mondial U20 waaye tamit dañuy daal di delloo njukkal ñi nga xamante ne ñoom ñoo di u yi nga xamante ne am nañu ndam lu rëy ci Coupe d'Afrique ba ñu demoon ñu leen di féliciter bu baax a baax di leen sargal euh, ndax kat ndam gi ndamu Sénégal waaye tamit ndamu Pikine la dañuy wax tamit ci ki nga xamante ne moom moo di génn àdduna euh, muy ab musicien nga xamante ne rek moom muy chanteur bii di euh, euh, Tina Tumeur moom nag da nekk rek légende rock rôle ak bi nga xamante ne moom moo di suul mu nekk nag koo xamante ne ku munoon seen la kon nag monde musique bi ñu ngi nekk en deuil ñu ngi leen koy jaale bu baax a baax a baax du ñu jeexal nag li nga xamante ne moo di seen revue de la semaine sans pour autant rek ñu nuyu nga xamante ne ñoom ñoo di euh, les sénégalais de la diaspora ndax nag ñoom ñoo ñu tàmm di ñu safoo ñu suivre euh, ñun waa Pikine TV ci loolu rek dañuy dem ba les États-Unis d'Amérique euh, di daal di nuyu sunu PDG su Seck di jël nuyoo bi rek teg ko ci loxoom naan ko rek joxal ñu ko bépp sénégalais ak ca réew ba mu mënta nekk li lañ leen indiloon ci seen revue de la semaine sëñ Xaadim ci caméra bi ay Lo mu nekkoon rek ci kàddu gi. thank you